génn li ci déterminant mooy élection mu ngi waaja egsi bëgg naa bokk ci élection pour mottali sama mébét ak sama yéene boo xam ni je pense que umpul kenn que ne yàgg na bi Idrissa Seck ne dafa bëgg a nekk président de la République am na sax ñuy wax ne mais loolu du dëgg que dama mus a wax ne je suis né pour président ça c'est faux je l'ai jamais j'ai jamais sama benn waajur bu nekk États-Unis bi ma fa nekkee ñoom ñoo ma dalaloon seen kër puisque université bi dafa am lu ñuy tudde host family programme moom moo ñëwoon Sénégal seet si ma ñibbi def benn interview ci benn journal américain ne someday Idrissa will become ci foofu la ñuy jëlee suñu nekk J'ai jamais dit ça. Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais vous non plus. Donc arrêtez de décréter ma mort. Vous n'en savez rien. Soyez modeste et soyez humble. Vous ne connaissez pas l'avenir. Vous êtes comme moi. Nous n'en savons rien. Comme disait un grand philosophe, ce qui est gênant avec la mort, c'est qu'elle transforme la vie en destin. Mais la vie, personne ne peut la prédire. Des circonstances particulières peuvent naître à tout moment. Là, je viens de déclarer ma candidature à la présidence de la République qui aura lieu le 25 février 2024. Est-ce que je serai là Est-ce que je serai vivant Est-ce que tous ceux qui assurent à être candidats seront vivants Qui peut répondre à cette question dans cette salle Personne ne le peut. Donc, ay mébét rek la ñuy am ay yéene la mais pour qu'un événement survienne, il y a trois facteurs. Les deux relèvent de nous, l'autre nous échappe. Ce qui relève de nous, c'est l'intention, la volonté de faire quelque chose. et la disposition à faire tous les efforts que cela demande pour que ça marche et à accepter de subir tous les sacrifices que cela demande pour que ça marche. Mais pour que cela marche et advienne, il y a une troisième dimension que nous les croyants nous appelons volonté divine et que les non-croyants appellent concours de circonstances qui nous échappe. Même les mathématiciens les plus rigoureux dans leurs équations, mettent une variable d'incertitude. Donc personne ne peut maîtriser l'avenir à 100%. moo tax li Serigne Cheikh doon wax boo bëggee noppalu da ngay nangul xare yàlla xareñam ci amal namm-namam ci jaamam moom rekk moo am xarañte namm dara réaliser keneen amul possibilité boobu